asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu ngeen dégloo bayit yu tedd yooyu xam ni jubleeti nañu bis bu tedd bis bu màgg di bis bi nga xamante ni bii mboolem murit yi ak jullit yëpp dañ koy fàttaliku saa soo xamee ni dugg nañu ci weeru koor gi muy fukki fan ak ñaar ci ginnaaw bu ñu waree tombe ak le 26 juin muy amee ca Mauritanie muy bis bi nga xamante ni bii ñu ngi ciy fàttaliku Serigne tubaa Seexul Xaddim ci jataay bi nga xam ne nekkoon na ko foofee ca Sarsara ba bindoon ba itam yu tedd ya wax ni inna la si na ila sar saara xat xasadu siyaarati faaraxu daaray ni aw saara bis boobu nag ñu di ko waajal mbooleem waa fédération ahlu kafe ci njiital soxna maam Issa Mbàkke ahlu kafe mi ngi nii toog fegoo ak mboolem mbokkam yi mu bokkal Serigne Touba yëpp ak mboolem taalibe yi yëpp ngir waajal jataay boobu ginnaaw bi nu jëlee ndigal ci Serigne Mountakha Mbacké xalifa général di murit di ko ñaanal mu yàgg fi te wér Serigne Sidi Mbacké mi nga xamee ni moo fa nekkal Cheikh Amadou Mourtada Mbacké foofee ca Mauritanie fédération Cheikhul Khadim jëwriñ yi nga xamee ni ñoom it ñoo bàyyi ko Mauritanie ñu ngi nii toog ci jataay bi ngir waajal bis boobu nag looloo waral jataay baa ngi nii ñu fas yéene yëkkati kàddu gu njëkk gi jox ko Serigne Ousmane sàmb moom mooy ubbi jataay bi soññee ci bis bi muy Mauritanie Sarsara foofee nga xamee ni mbooleem képp ku yaakaar Serigne Touba fekki nga ko fa mbaa sa maam fekki na ko fa sëñ Ousmane Samb bu ubbee ba noppi soññee danañu jox kàddu gi ci topp sëriñ Abdou Assis Diop mooy wax ci turu sëriñ Sidi Mbacké moom Cheikh Mouhamadoul Mourtada ci turu fédération Cheikhul Khadim bu noppee nag des na jox yaa ndey Diouf kàddu gi ci topp mu soññi mbooleem soxna yi nga xamee ni ñoom it ñoo war a dem sarsaara di ko waajal mu soññi leen ci départ bi le 26 jàpp la trent ba ca siyaar ba bu noppee nag des na jox kàddu gu mujj gi sëriñ Abdou Lahad Dieye mu leeral lépp lu aju ci wàllu dem bi ak dikk bi ak wàllu li nga xamee ni mooy addiye yi kon ñu euh, jox kàddu gu njëkk gi sëriñ Ousmane Samb mu ubbi ko bisimilah. ñu leen nuyu seen ziar bu ngi gisee suñ jotaay bi li ko waral nag tey mooy fa yéene waajal bis mi ñuy taxawal ci Mauritanie muy Sarsara di fa fàttaliku suñu jàmbaar ja xaadim rasul ak di ko fa sant te fas yéene ko ànd ak ki nga xam ne moom la suñu borom tabaaraka taala teg fii ci réew mi mu jiite ko muy soxna Aysatu Mbàkke di jàmbaar joo xam ne dara ñëru ko lu dul liggéeyal maamam ji xaadim rasul suñ jotaay fii na tey dafa am lu ci yokk ndax ki nga xam ne mooy suñu bunt sëñ Tuuba muy sëñ Cheikh Mbacke Diop moom sëñ Omar bi mu yëgee taxawaayu soxna Aïcha Mbacke ci liggéey bi nga xam ne moom la liggéey maam Xaadim Rasul ak pastefam dañoo yokkaat di leen diggal ñu ànd ak moom ci lépp lu mu ne ci liggéey sëñ Touba maamam moo tax ñun tam ñu gën a yokk suñu pastéef ci fas yéene ànd ak moom rawatina bis bi ñu jëg dëgmal muy Sarsara war a nekk le 28 ak le 28 le 29 ak le 30 juin ca Mauritanie woo mbooleem julli yi mboolem taalibe yi ñu fas yéene dem taxawal foofa bisu bisu sëriñ Touba bu ñu taxaw taxawal ko ci jëf ak pastéef ak liggéey yi xam ne simb nañ ko fa muy ay jàkka dañ dañ fay liggéey ñu yokk ci pas-pas yëpp ba lépp loo xam ne mébét nañ ko fa rek suñu borom àggale ko ci jàmm ak salaam. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku jullit mbokku taalibe ginnaaw bu ñu amee ndigal si Cheikh Mountakha Mbacké ñëw wàcc tey jii si rakam ju tedd yi xam moo nekk ak ñun fay si Mauritanie muy Serigne Sidi Moutada ginnaaw bu ñu amee itam ndigal itam jëm si fédération Cheikhoul Khadim bi xam moo nekk Mauritanie ñu teewal fi tey ji waxtaan ak yéen fas yéene ànd ak yéen si bés bi nga mu nekk quatorzième édition màggalu Sarsara fële si Mauritanie mu nekk si bésu le 28 ak le 29 ak le 30 boo xam mi ngi foofu rek mi ngi koy waxte di sàkku tamit si autorités yi xam ñoo nekk Mauritanie ak yi nekk fii ñu fexe ba dimbali tamit suñu mbokku taalibe ak suñu xam ñoo fas yéene ñëw ànd ak ñun bés boobu te nekk na loo xam ne metti na trop yoon bi métti na waaye ñuy sàkku tam si autorité bi xam ne di fi nekk yoo xam mooy kilifa président bi xam moo fi nekk di Macky Sall mu fexe ba waxtaan ak omologam di Raïs Mouhamed Abdoul Aziz bu Mauritanie ñu fexe ba yombal lépp loo xam ne fas yéene nañ ko defal suñu yi xam ne fay jógee di ñëw ba foofu si Mauritanie ndax nekk na yoon boo xam ne métti na trop kon nañuy ñuy tam mu yombal lépp lu jëm si wàllu Rosso ak si wàllu Rosso Mauritanie ak bu Nouakchott kon nag ñuy sàkku ñëpp daal képp ko xam ñu fay ñëw rek nañ fexe ba yoon bi suñu boom yombala ñu ko ñuy sàkku lépp loo xam tamit ñu ko jëm si autorités yi xam ñu taxaw si yoon bi tamit ñu fexe ba xam ne mbokk taalib yi xam ñooy ñëw ñu xam ne ne dañuy ñëw fa seen ànd kon ñuy ñaan ñëpp daal ñu yombala lépp loo xam ñu ko def nañ fexe ba tamit ba bàyyi lépp génn kër yi génn lépp yaatal lépp suñu mbokk taalib yi xam ñoo jógee fii si Sénégal fa seen ñëw fee si moto ànd ñun bokk liggéey bi man nag maa ngi wax ci turu soxna yi di leen xamal ni lii nekkul lu ndaw soxna maam Issa Mbacke bi ngay def lii wéet nga fi waaye tabarkàlla macha allah soo demee tey ba ñëpp bëgg a dugal seen loxo ci Sarsara kon ñu soxna yi ànd ak yow war na noo yokkaat laxasaay dolli yar bi ndax lépp lu yar nekkul rek du sotti te ko tey bu ñu xoolee ci soxna maam isa Mbacke mi ak toogaayam rek war nañoo am jàngaat bu wér ci suñu jëm yi ñu dolli waar laxasaay gi dolli yar bi yokk pasif gi cotisation yi xam ngeen ko départ bi le 26 la balaay ñëw incha allah na cotisation yi yemb suñu yeggee ba Sarsara ñu xam ne ñun ñi kat ay royuwaay lañu li may wax rek discipline lu am solo la ñu yokkaat ko maa ngi soññ ñëpp nag. lépp ñu ngi ko teg ci ndigalal Cheikh Mamadul Muntaxa ak tam Cheikh Mamadul Fadal mu Cheikh Mamadul Mourtala mi nga xam ne moom la Serigne Saliou njëkk yebal foofa. te ba léegi tam mu fay teew teewaay bu rafet ak sëriñ Mouhamadou Mamoun Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne moom itam dem nañ fa mu rafetlu liggéey bi wax ñu ne incha allah fas na yéene ànd ñun lépp ak sëriñ Sidi Mbacke mu Cheikh Mamadou Moutara yi nga xam ne moo nekk gànnaar nekkal fa njabootu sëriñ Touba gépp jiite Mouridia waaye ak ci turu seen jigéen di seenub taalibi di seen lépp muy soxna maam Issa Mbacke bintu sëñ Modou Fati Xeri ibnu Zeex Mazamba ci turu kilifa yooyu la ñuy xew-xew bi nga xam ne bayit yi nga xam ne moom la ñu ubbee rek dana nu tegtal barab ban jëm ni mu toll ci yoonu murit ndax dañuy wax toujours ne yoonu murit euh, foofee la amee mandarga citoyen bi su demee ba mesure am carte d'identité dañuy wax ne kooku moom ci réew mi la bokk waaye yoonu murit foofee la juddoo nga xam ne fa lañ ko mandargale ndax sëriñ bi dane ku jàpp ne tukki ba mu tukki woon Gabon ak bi mu def gànnaar benn lañ ab dof nga bu xamul dara ndax tukki ba mu defoon Gabon da doon liggéeyal boroomam mhm. tukki bi mu demoon gànnaar nag da doon fayu ji fayu ga moo tax mu wax ca wakaana aqan ne ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal waxdu lii fii ramadanin najaza nee na weeru koor woo nga xam ne ci la gisee yonent bi jol jot alwirdul maquus min allahi bi wasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na lépp lu ko suñ borom digoon jox na ko ko mhm. barab boobee itam la wax ne képp ku fa teg sa tànk te ziyaare ma yëkkati la suñ borom tàggale ak bàkkaaru àddina ak bu inna alladina ila sarsaara xat xasadu ziyaarati faaraxu daara ni aw saara sëñ Abdou Lahad nag nee na may googee at ma ko ko yàlla maye ak weer wa dañ koy jàpp rek waaye ba faw ku dem sarsaara rek faaraxu daara ni aw saara kon loolu moo tax ñu koy yaatal di ko woote at mu jot ñu bëgg ko fu mus sa dem dem fa kon loolu ñu ngi koy fàttali bokki taalib yépp demin witam dafa am ay sart yoo xam ne faw ñu bàyyi ko ci xel mooy ki bëgg dem sarsaara faw mu am carte d'identité nationale Euh, wala mu am passeport boo xam ne jeexut ñaar yooyu moom mooy sart yi ñëkk su dee tam koo xam ne dafa bëgg yóbbu otoom euh, faaw carte gris bi turam nekk ci wala ka ca turam nekk jox ko photocopier carte d'identité ñu légaliser ko ba nga xamante ni bii daal dana mën a jéggi frontière ba euh, su dee nag biche yi nga xam ne moom la ñuy jël tam biche yi képp ku bëgg a dem paas bi juróom-ñetti junni la aller ak retour li ngay lekk ak li ngay naa ak dem sarsaar ak ba ñibbisiwaat ci la bokk soo amee loo bëgg laat sa bopp nag loola moom yaa koy defal sa bopp waaye loolu mooy paas bi am na tam ay particulier ay oto yu ndaw yoo xam dañ koy jël yooyu nag seen paas moo gën a xaw a seer tuuti ndax particulier yi paas bi fukki junni la moom itam moo la yóbbu sarsaara ba nga ñëwaat incha allahu taala kon loolu moom mooy li nga xam ne képp ku bëgg dem faaw nga fàggu ko danañ joxe itam ay contact yoo xam ne képp koo xam ne da bëgg a dem soo wootee ñii danañ la mën a tegtal eh, fi ngay ni ngay def ba verser sa paas Euh, contact yi li ci njëkk mooy soxna maam Issa Mbacke mi nga xam ne moo jiite liggéey bi numéro téléphone mi ngi nekk 77 141 90 17 su weesoo tam sama numéro mooy 77 874 39 00 mooy ci wàllu Touba gi. bu dee nag ndakaaru ajaratu faamaloo moo fa nekkal soxna sa ca guy Masaalikul Jinaan ak ndakaaru ak la ko wër lépp oto yooyu nga xam ne tam mooy départ ndakaaru. di convoi bi soxna Faamaloo di jiite moog bi soxna si di jiite dañuy daje Louga ñooy ànd kii ñii dañuy déparé Touba ñii déparé Louga ajaratu Faamaloo moom dem képp koo xam ne bëgg na numéro téléphone am mën naa jël di 77 655 zero 09 ak suñu jëwriñ ji doon yëkkati kàddoom léegi muy Serigne Ousmane Samb moom itam numéro mi ngi nekk 77 276 10 10 ak waa daayira Sarsara di Serigne Moustapha Dieye moom itam numéro mi ngi nekk 77 417 58 06 moom itam 58 06 moom itam mooy numéro kon loolu mooy coordonnées yi numéro yi nga xam ne képp ku ci woote bëgg dem Sarsara dañ la mën a teg ci yoon wi nga war a jaar. mbokk yi kon jataay baa ngi noonu déglu ngeen kàddu soññe yi fi jib yëpp départ bi le 26 juin lay doon fan la ñuy déparé kër Serigne Touba gi ci Daaru Marnaan waaye le 27 le 28 le 29. bala la 30 ñu fas yéene màggal nag li nga xam ni mooy sarsaara ja bu ñu jógee Nouakchott fas yéene dem sarsaara barab bi nga xamee ni fa la Serigne Touba gisee woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñi ngi ñaana soxna maam Issa Mbacke ahlu café yal na yàlla guddal aw fanam te yokk wéram yàlla àggale yéenam ci liggéeyal Serigne Touba yal nañ ci dajeg wax di xawaa ijal la si na daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.